ginnaaw nuyoo bi ba tey ñu ziar leen bu baax a baax information yi daanaka lu mënta ñàkk la ngeen di xam li xew ci réew mi ak li xew ci bitim réew ndax wax dëgg yàlla ñëpp xam na ni réew mi fi ni jaxasoo na waaye nag information droit la ci kenn kum doon ci yéen ñu leen di ñaanal jàmm ñaanal leen sutura ak jàmm ju sax dàkk joo xam ne réew mi di Sénégal yàlla na ko fi yàlla tuur yal na ko fi yàlla dolli yàlla na yàlla dolli sutura ba kenn ku mën di doon pexe mi nga am ci réew mi muy pexe mu baax yàlla defal la ca pexe mi nga am ci réew mi nag te mu nekk pexe moo xam ni jàpp naa ni la naka sudul noonu la yal na yàlla jubbanti la basam pexe nekk pexe mu jub xoccu nekk mu baax ndax njariñal Sénégal Eden Hazard ngeen gis ko noonu matcham bu mujj bi nga xam ni doon na ko football ak équipe bi la di Real Madrid gaa yi kontaan ci moom bëgg ci moom jalool ko ba ca kaw di wan ni jaar fi nga fi jaar réccuwuñ ko benn ci yoow baneen bi ki nga xam ne yàgg na fi lool di Marc Asensio di ab espagnol boo xam ni la mu doon football ci milieu gauche bi amoon na solo lool waaye nag lu mënta ñàkk lu ne faw mu am gone gi tàggatoo na bu baax a baax ak waa meilleur club du monde fa mu jëm moo ko xam yal na ko yàlla defal foo fee ak sutura sutura Karim Moustapha Benzema gars yi Real Madrid yi ñaanal nañ ko ko bi match bi jeexee moom it dernier matcham la doon football ak gone yi seulement yu weex yi moom moomee nekkoon footballkat boo xam ne ci histoire Real Madrid daanaka kenn duutu ko tudd daal di koy belli ndax jàmbaari fàkk tëdd ji jàmbaar ji la mu fa def lépp ci li nga xam ni moo wér te ci football ak njariñal club bi ak fa mu ko yóbbu loolee kii di Florentino Pérez du ko fàtte benn yoon Mariano kenn du ko fàtte benn yoon ah, ci équipe bi nga xam ne mooy bu Real Madrid moom it ah, football ah, dernier match maanaam bu ngeen xoolee ñu war a dem ñëpp kenn kum ci man di doon équipe bi kaf na ak yow ree yow ngeen xam ni am na lu manqué ci Real Madrid di ñeenti footballkat yoo xam ni ci benn saison benn kii danañ ci génn loolee bariwul lu muy am jërë ngeen jëf ànd bi am na solo.